liggéey bi euh, maanaam ci door bi bi ñu demee ci sëriñ Sidi Muxtaar dañu woon nañ ko yaatal te da koy ànd ak nun moo tax yëmale wuñ ko ci biir dëkk bi rek fépp foo xam ne woote diini la buñ cay buñ ko déggee des na jàpp ay ndaw jël suñ oto ak suñ doole ak suñ lépp dem ca nam ware def fa lañ fa war a def bu matee ñu ñibbi si ñibbisiwaat ànd ak suñuy xel ak suñuy lépp waaw loolu am na ku ci bëgg a bokk ku ne maanaam buñ la boo xamante ni jot nga jot nga xam mooy secrétaire euh, Ablaye Ndaw mu ngi gaaraasu Daaru Musti en face gaaraasu Daaru mussi boo fa demee dina la ay carte membre la am carte membre yet 5000 francs lañ koy jaayee ku ci bëgg a bokk boo dikkee boo amee 5000 francs boo dikkee ci Ablaye Ndaw en face gaaraasu Daaru Musti da nga dina la ko jaay. waaw communication boobu àgg na am na ñoo xam si àgg na ci ñoom àgg na ci ñoom. ndax euh, maanaam bi ñu bi ñu loolu amee dañoo jël suñu oto wër ñi nga xam ne ay garage lañu nekk ci ot ci dëkk bi ñu dem ci ñoom ay chef de garage ñu dem ci ñoom wax leen affaire bi ni muy doxee lépp ñu leeral leen ko A ba Z na muy doxee ginnaaw loola ba mu jàlleet dañoo jël oto defaat ci gasoil def ci matériel boo xamante ni wër corniche bi wax ci képp koo xam si bëgg nga ci bokk wala nu mu mën a demee na nga ñëw ci réunion sénéral bii ñuy ñëw boo ñëwee da nga ci am lu leer nañ looloo def nañ ko. aw Porokhane moom liñ ci nga xamante ni mooy sunu nun moom mooy incha allah fi mu toll nii ñoo ngi ci programme programme bi ñoo ngi biig rek euh, bi ñuy xam ne si mooy alxames yi nga xam ne moom la ñuy def bi ñuy dikkee bi ñuy réunion ci loolu poroxaan lañ doon waxtaan noo ngi jël suñuy maanaam suñuy matuwaay lépp loo xam ne si luñ fa war a mën a doxe la ak luñ fa war a mën a jëfandikoo la lépp loola ñoo ngi ci fi ñu toll nii di ci dox di ci wax ba maanaam am na ñoo xam ne si sax jote joxe joxe nañ la nga xam ne si ñoom moom lañ ci war a def joxe nañ ko fi ñu toll nii mat na ci ñoom seen wàll ñoom mu des la nga xamante mooy notaire yi kese moo des ci ñoom waaye liñ ci war a joxe joxe nañ ko ca wax dëgg yàlla damaa yaakaar ne ñi te nekk ci dëkk bi ak autorité yi war na ñoo xam fan lañ toll nag ci liggéey bi ndax liggéey bi dëgg la sëñ Tuubaa ko moom waaye bindee fi yàlla yi lañ koy defal te social kenn ku ne xam na ne social lu yaatu la social bi ñuy def nag maanaam day bañ jógee ba léegi dañuy def sunu doole ak sunu kàttan ak sunu man-man ak sunu kii waaye nag li ñu bëgg daal mooy euh, moo xam muy euh, euh, ba defee yi nga xam ne maanaam dañuy liggéeyal yàlla te sëriñ Touba ñor leen wala autorité yi wala sëriñ si nga xam ne tamit seen maam la liggéeyal te ñoom moom Touba war nañ cee dugal seen loxo bu baax a baax a baax a baax ndax bari na moyen yoo xam ne wax dëgg yàlla dañ ciy sonn lool lu xeetoog ay otoog ak bagage yi ñu war a liggéeyee yooyu yëpp. ñu ngi tàllal ñëpp loxo ñu ngi tàllal ñëpp loxo képp koo xam ne daal ah, liggéey Serigne Touba neex na la woo nañ la nun nag duñu dem ci kenn moom di ko sonal ñuy darte darte am nañ nag ay partenaires personnels yoo xam ne saa yu liggéey jotee ñoom buñ demul sax dinañ ñu woo yëkkati seen alal jox ñooñu ne bu ma nekkee di lim da damay juum. ñu ngi leen di nuyu ci seen tur ak ci seen sant di leen xamal ni itam képp ku ñëw. di wala nga ñëwoon ci ci réunion général bi ñu doon def muy AG bi boo ci amee motivation wala nga am ci loo gëm wala nga am ci looy leerlu man maay secretaire général bi Abdoulaye Ndaw sama numéro 76 396 23 95 jamono bi 78 105 01 59 boo ma ci woowee foo mën a nekk bu la neexee sax bul déplacé wu nañ nañ ko fexe nu ñëwee enregistré la nga jënd carte de membre carte de membre 5000 lañ koy jaayee. am na numéro yu mu tàmbalee am na fu mu yem man mi koy jaay xam naa fi ma yem ak ak ku ma yittewoo nag mel ni man maa koy jaay su ma ko jaayee jox ko trésorier mu téye ko noonu la def mais keneen ku man munu laa jaay carte te bu la ñëwee jaay kart bu ko jënd.